a jaale li ñu bokk. waa di ko jaale Sénégal bi yëpp ginnaaw bi ñu sant yàlla di judi siyent bi di gërëm si waajur ñu am tiis boo xam ne vraiment tiis bu bu rëy la waaw vraiment affaire bi moom bomb yegsee suñ ko daf mel ni bomb vraiment waaw ñu koy ñaanal yàlla nga xam ne moo mën waaw suma papa la parce que bokk Casamance mu juree bala rek la mu juree dañoo liggéey loo xam ne ñu mënuñu leen ko fay parce que tey lu ñu am lu ñu doon rek ñoom la parce que tey ñun dañoo keppaari ci garab goo xam ne xamuñ fuñ ko bàyyee fuñ ko ñëbbatee waaw dañoo liggéey loo xam ne ba ñu ko fi tey ñun suñu sutura suñu njaboot ak lépp muy moom muy Pape Diop. nekk ay international ah. indi Sénégal raay bu nekk. duñ def ci làmb ñun mënuñu ko def dañoo liggéey ñu lañ liggéeyal kon bala ñàkkul ñu ñoo ñàkk axlu làmb moo ñàkk. waaw ñu ñaanal ko rek parce mu toll nii sa ñaan rek la seen waajur soxla bon toppatoo nañ ko ba muy dund am nañ ñaanam lu war si moom yëpp def nañ ko kon fu mu toll nii nañ koy bañ a fàttali ko ñaanal rek waaw di leen jaale nag di leen jaale di leen jaal ñu bokk waaw du <laughs> non sama papa la kon lu muy conseillé doomam rek loolu may la yooyu conseillé ñëpp ah muy man ak sama morom waaw ma maa moom dañoo rusante sax waaw mu gisee joxante loxo bu amee kàddu yu may conseillé mu conseillé mu ko suma waajur la waaw suma papa la waaw dañuy gis mbër bu gën a disponible muy yow suñu gisee ku mbër bu wàññeeku su problème làmb ji yow yaay njëkk a teew lan mooy lan moo waral loolu Eumeu Sène waaw ñëpp ñoo bokk ndey ñoo bokk bàyyi jàmbaar àdduna dafa gàtt àddunaa ngi nii hmm. yàlla bu lay sàkk du tàggu kenn bu lay yóbbu du tàggu kenn àdduna dafa gàtt te ñëpp ñoo bokk ndey ñoo bokk bàyyi Sénégal benn bopp la waaw dañuy mayante xaalis mais ay xarit lañ waaw. làmb yi boo xoolee ñëpp benn lañ jàmbaar parce que ñooy mayante xaalis comme ni ko rek. tey nag dañu am tiis. waaw dañu am tiis boo xam ne xëy na duñu mën a sori ci wax jooju. waaw parce que suñu waajur moo génn àdduna du dëgg. waaw ñun ñëpp ñoo bokk ndey ñoo bokk bàyyi. waaw te man xam naa li ma jàpp ni la ñëpp jàpp. ñëpp yéen sa morom jàmm. làmb la sport la mais bu yoosu ñoo bokk ndey ñoo bokk bàyyi te dëgg la tamit aussi. waaw ñu ngi koy jaal Sénégal yëpp di ko jaal tamit ministre de sports. di ko jaal président bi. di ko jaal adduna bi yëpp. parce que ñëpp a a ñàkk dinaa la ko laaj maanaam tey ñoom ñi nga xam ne ay anciens international lañu. muy Double Less Pape Diop Boston défendre couleur Sénégal te des donte amuñu problème sax mais da mel ni état est-ce que ni ñu leen war a taxaw mu ngi leen koy taxaw loolu tey ban appel nga ciy lancer état du Sénégal. waaw mu gersu leen rek parce que dem tamit aussi initiative de CRA du lu ndaw. te ñoom def nañ lu ñu deful maanaam ñooñu moom wax dëgg yàlla état bi leen di war di di di gëstu weer bu nekk. Hmm. waaw parce que dañoo loo xam ne yombul pour nit dugal ko dëkkam. Hmm. du dëgg. waaw jàppale di leen nemmee ko parce que ñoom ñoo ko liggéey waaw di gersu sportif bu baax ak artiste tamit aussi ci bépp côté ah. ñu gersu bu baax parce que àdduna noonu la quoi da ngay mën tey suba doo mën du dëgg mais tamit aussi loolu la am ne dinañ jaale tamit quoi dinañ jaal waaw man nag mënewuma wax noonu quoi parce que tey moom soo xol bee neexul quoi Balla Gaye tey ah di ko wax mu muñ di ko wax mu muñ parce que yàlla noonu la ay mbiram nii la day xool sa buumu xool li nga gën a bëgg mu jëlee fa sant ko rek moo la war du dëgg parce que yaa ñu alalu yàlla suñu borom lañ waaw yàlla moo ñu. luñ bokk. waaw waaw noonu la demee Babacar maa ngi nuyu ñëpp di ziar ñëpp boo xoolee li taxal teew tamit dafa nekk loo xamante ni dafay dépassé làmb daal. waaw làmb parce que ñu ñëpp ñoo bokk ndey bokk baay wala ku xam dee xam nga dafa dafa sori te Balla suñu frère la Double nu mu juree baala noonu la mu juree noonu la juree keneen keneen suñu papa ñëpp donc bu fi jugee foofu ñu ñëw bokkul tiis bi waa Guèye waaye bokkul tiis bi Balla bokkul tiis bi Sa Thiès ànd ceeg ñoom masawu leen bu baax di ñaan suñu borom xare ko àjjana waaye comme ni koy wax rek làmb solidarité am ëpp bànneex ñëpp day ñëw mais aussi ku am naqar ñëpp day ñëw loolu mooy laaw mooy àdduna ban témoignage nga a def ci suñu papa Double di seen papa comme ni nga ko waxee. waaw sama papa la moom sama papa moo ko gënoon xam lu bari man xaw ma ko lu bari ko gisoon lépp mais li ma mën a wax ci moom yàlla suspension. moo ko seen doom lañu suspendre Pape Mbaye Guèye ñu mel ni seen doom lañu suspendre ñu taxaw ci di dem di seet Alioune Sarr di dem fu di ci wax donc loolu wane na ñu ñëpp la jur daal donc loolu daal maa ngi koy seere fii di ñaan suñu ko àjjana di jaale Balla bu baax a baax bu ko naaw gis mais affaire dafa métti trop ci moom Sa Thiès di jaare waa géej waa ak monde lamb yëpp di ñaan suñu borom xare ko àjjana bu baax incha allah kon boo yooyu wax axlu làmb ndax lii dafa wane ni yéen a bokk ndey yéen a bokk baay yan kàddu lay doon waaw noonu àdduna nii la moom ñu ànd boo xoolee yéen ñi xam ne journaliste yi seen liggéey tey yéen a ngi ànd donc ñun mbër yi faw ñu ànd ànd bi nag teewul ne mooy bëre mooy suñu métier il faut ñu bëre waaw bu ñu laam boole dañuy bëre mais comme sama moo bi may wax rek bu jeexee dafa war a jeex daal ñu ñëpp ñu bokk ndey bokk baay ku am bànneex ñëpp teewal la ku am naqar ñëpp teewal la quoi Balla bu ñu gisee au moins sa affaire bi dina xaw a sedd ci moom parce que Baye dafa sori quoi ñu ngi masawu ñëpp jaajëf gaay dafa naa douleur boobu metti na trop ci yow ginnaaw bu ñu la jaale alhamdulilah ay mi dañ koy nangul suñu borom subhanahu wa taala rek ñun dañu fekk ji waaye yàlla na yéex ah boo xoolee Mbaye ak Double seen diggante eh, eh, dañoo njëkk a ànd bokk fu ñu daan dëkk bokk fu ñuy fanaane et eh, mën naa ne Mbaye moo tàggat Double Less yu bari ci biir Ndakaaru parce que boo Double Less ngi ñëw mais làmb na mu yàlla daal moo mën a boole ay nit ñu bokk wërsëg mooy def boole wërsëgu ak Double ñu dem ba ñoom ñaar ñu bëree ñaar yoon te mosu ñoo ñaaw dañuy demlante di dikkalante Double Less ma gis sunu kër ginnaaw mu bëri mbéyee xaw ma nu mu toll. yaa ngi dégg fi may mm-hmm. ba bi ñuy jubilé yëpp maa ngi taxaw seen kanam ñoom ñaa ngi taxaw si ruq bi nii di waay gi taxaw di leen feccal nii boobu maa ngi samay digg affaire. koo xam ne yàlla leen boole mm-hmm. ci àddina yàlla boole leen ci àllaaxira 28 jours la ñu rawantee mm-hmm. mbéy gi amagul mois euh, euh, Double Less fekki ko kon boog ñoom yaa seen kóllëre mat na. mat na mooy ànd nañ ci àddina ànd ak aussi ci àllaaxira ñaanal leen yàlla xayal àjjana mooy moo ñu desee suñu jeunesse su pays suñu jeunesse su réew nañu xool ci ñaari jëmm yooyu bi si tey bi sax bi si Double Less kese la dañu xool ci jëmm Double Less kenn mënul compter ñaata médaille doon lam Sénégal amul ku ko mën a ku ko bëgg xam da ngay dem ministère nga demandé archive ñu génneel la ko mënu maa taxaw ne jël na bii jël na bii jël na bii moom sax su nekkoon du ko xam gis ngeen ko dégg ngeen réaction yi mu mel ne tey monde lamb moo ñàkk te bi mu ñàkkee tamit ñëpp ñi nga xam ne bokk nañ ci askanu làmb ñëw nañ gunge duubalees ci këram gu mujj moo Mamadou Sakho yal na ko yàlla jéggal te xare ko aljana barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di ko jaal képp ku nga xam ne ni ko wax rek moo di ak njabootam waaye di ko jaal askanu làmb defe naa nag nit ñi boo nekkee ci àddina di dund lii mooy wane que ni yow bi fi nekkee am lu amaloon nga nit ñi njariñ nekkoon nga nit ku euh, baax nekkoon nga roy waaye ndax tey li ko topp ci mbooloo li ko gunge loolu dañ koy liggéey ci bi ngay dund yaa ngi dégg yàlla na ko yàlla xare aljana mu bépp jullit bu mu fekk ci suuf ak bu ko ci fekk di jaale ñëpp vraiment maanaam askanu lamb yëpp teew nañ parce que tey mënoo lim mais ñëpp nga fi gis koo fi rek jàppale ne dafay nekkul wala sori na lool waaye ñëpp teew nañu te defe naa ne bu kenn sax teewee day teewaale ñëpp kon nañ gën a rafetal diggante yi rek gën a yéeneente jàmm ñaan jàmm yàlla def ko Sénégal barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di nuyu ñëpp di ñaanal ñëpp jàmm